donc euh, fexe ba élèves de sciences science gën a bëri donc euh, moi, par exemple au ministère de l'enseignement supérieur créé une direction de promotion de la culture scientifique ANSERA aussi moom mu dans ce sens là donc pour inverser la tendance donc euh, blog yu mel nii dina tax élèves yi ci teel suñu il y a gis science yu bëri ñu ko gis microscope mën a gis lu bëri comme ça science mu l'intéresse assez tôt mm. parce que soo bëggee inverser tendance sans changer affaire bi que ni de science

bu développé wu amul ben réew bo xamné amna émergence te euh, sukkandikuwul ci science. donc li motax ñun tay wax dëgg yalla ñu ñëw fi installer ko te yaakaar nañ né wa commune bi ni ñu xamé maire bi inshallah ki dinañ ko utiliser dañ ko wara utiliser ba nga xamné ne Sandiara dinañ ko mëna joxé dans 2 ans buñ ko évaluer danañ mën a ne quatre projets ba ñu defoon Sandiara produit na yi résultat liñ ci duggal ci koppar moy juroom ñetti fukki euh, millions ak ñent yi nga xamné suñu fonds propre la sunu budget la ñu jël ko xayma ko def ko fi nga xamné moy mooy euh, dafa di euh, Sénégal 70%. ci xalé yi ñu si bari li ñuy wax sciences humaines moom la ñu mais 30% rek ñoo ci bëgg di def euh, filière scientifique té dañu yaakaar né réew amul ben réew bo xamné mëna développer sans filière scientifique tey dëkk yi nga dégg ñuy wax scientifique yi nga dégg ñuy wax émergence yépp